xam ne jàmm gën ay mais pour man loolu noonu nag caméraman bi muy kii wax si micro bi muy reporter bi dañoo war a bàyyi xel ne dinaa joxe information mais aussi sama responsabilité mooy fexe ba lii nii ñu ñu mën a fexe ba jàmm am mu may gën a lu may gën a enflammé lu may gën a yokkee li nga xamante ne mooy taal bi parce que loolu c'est de la responsabilité et pour man nag loolu nag dama jàpp ne kenn ku nekk si nekk si presse da a bàyyi xel si loolu. d'accord nga ak loolu. Euh, li principe yi ñuy wax. Euh, liberté dafa ànd ak euh, responsabilité et je crois que ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey en tant que tas xibaar euh, xam nañ seen liggéey tàggat nañ leen ci ci ci liggéey boobu nga xam ne moom la ñuy liggéey mhm. parce que li ñuy wax principe bu informer juste et vrai du dëgg sànq bi ma dama dama ne la Wolof Njaay nee na mhm. kuy aj bëggul kuy téen donc li nga xamante ni maa ngi koy fàttali 23 juin euh, événement yëpp c'était montré en direct je crois. Mhm. et man ba tey gisuma ci image yi Walfadjri wone aucune forme boo xam de propagande ou d'incitation à la violence ou quoi que ce soit nañ ma ko war ko ko nekk gis li ñu wane mooy li nga xamante ni moom moo am sur les manifestations et ça tout le monde euh, le savait parce que tout le monde avait vu venir mhm. parce que bi nga xamante ni euh, président nee na daf ñu génnee ci crise mais daf ñu dugal ci crise loolu c'est réalité mhm. mënuñu ko nëpp nëppal du dëgg mhm. beneen bi moi je considère que euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci ci ci wàllu média ils ont une responsabilité mhm. parce que tey yow man mënu toog fii ci télé bi ma wax yenn kàddu yi wala dara euh, d'autant plus que man ci à niveau euh, li may wax il faut man ma situer lan laa war a wax fan laa koy waxee ak ni ma koy waxee lu dëgg hmm. beneen bi am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi te duñu bàyyi loolu mu jàll je crois que wal fajiri mënul def 40 ans te du xam lan mooy déontologie lu jëm ci wàllu liggéeyam te du xam liggéey bi nan la koy encadrer je crois que si euh, loolu lay la rek bu ñu bu ñu bu ñu bëgg a wax wala ñu ko wane beneen bi hmm. tey euh, man waxuma ko Ablaye fii nga toog di plaidoyer assise de la presse assise de la presse mais parce que soo bi am na ñu ci rax hmm. te yi ngay wax ni Bamba da ngay taal internet bi ku mu neex nga yor sa kii tuddee ko lan TV. waaw dëgg la de Tongalam TV wala loola des yoo xamante ni ràññeewoo leen ci presse jànguñu presse xamuñu presse ñooñu te tenir moo yooyu wala di wax leneen di pousser ñeneen moi je crois que euh, comme tu as dit euh, jàmm jooju. Mhm. Walfadjri bokkoon na ci seen benn way bu ñuy teg Julien Jouga tëgg ko ak Doudou Ndiaye ko boros naan jamono ji dafa laa jàmm ju mat sëkk. je crois que jàmm ju mot sëkk mooy nga wane jàmm ndox jàmm et kii war a jiite jàmm jooju moom mooy le président Macky Sall. Mm-hmm. donc moom moo ci am responsabilité boobu. au-delà de d'être euh, groupe de presse on emploie des pères de famille yoo xamante ni Abdoulaye l'a dit de chauffeur en passant par cadreur wala caméraman et je crois que sur le paysage médiatique sénégalais Walfadjri da ci joué rôle bu mag. man souvent quand les gens me disent dama naan ni man euh, première bi ma woo ma fa yóbbu dañ ma tegaleen njëganaay pour ma toog mën a wax. Mm-hmm. j'ai fait une émission ak euh, Sa Ndiogou émission ataaya ma dem fa benn yoon demaat fa beneen yoon 2014 2015 donc Walfadjri bokk na ci xar kanam yi nga xamante ni bokk na ci patrimoine sénégalais donc pour man euh, le retrait de la licence définitive est injustifié mmh. on peut justifier ça pour man c'est une forfaiture pour man euh, c'est c'est un acte boo xam ne dañ ko posé c'est une agression à, la liberté de presse et maintenant si la presse ne peut Euh, bàyyi seen yenn intérêt ñu ànd nekk benn say am ful la aussi sa xeex yaa koy xeexal sa bopp balaa benn Sénégalais ñëw yéen a koy xeexal sa bopp. Hmm. mais su fekkee ne même presse bi kila teg toor boo wootee yaa koy njëkk a wuyu. mi ngi mu ngi noonu. alors ñu anticiper avant ñuy dem euh, publicité Abdoulaye on a on a reçu l'information selon laquelle 39 députés de Yewwi Askan Wi on vient de saisir le conseil. Euh, constitutionnel pour contester la loi constitutionnelle qui reporte l'élection euh, euh, présidentielle au 15 décembre 2024. Alors, quelle, quelle lecture sur cette, sur cette démarche D'abord, mënuñu sax considérer que c'est une loi la loi constitutionnelle waxal kañ la loi parlementaire quoi <laughs> voilà euh, pense que c'était attendu mhm. parce que tamit euh, à la publication du mais mhm. également suite à au vote Euh, modifiant l'article 31 jëm si proposition de loi mhm. bi nga xam ne pousse na député Benno ak PDS wàllu ñu voté li nga xam mooy report élection yi mhm. ils avaient six jours francs pour mën a def li nga xam mooy euh, recours devant le conseil constitutionnel ce qui mhm. a été fait léegi nag euh, recours boobu mën na am conséquence Mm-hmm. conséquence ni conseil constitutionnel c'est la seule institution aujourd'hui habilitée en dehors de du recours attaque bi nga mën a def euh, si décret bi yóbbu ko fii nga xam mooy chambre administrative Cour suprême li jëm nag si report bi conseil constitutionnel c'est le seul organe ñu bëgg ñu bañ ko boo xam ne moom mën na euh, euh, jëfe loolu waru bañ bañ kaa jëfee Mohamed 2012 mm-hmm. président Macky Sall boobu ñëwee dafa ne je vais réduire mon mandat de sept à cinq ans du dëgg kan la saisir assemblée assemblée nationale la saisir wala conseil constitutionnel. <laughs> conseil conseil la saisir. waaye waa léegi bu fekkee ni il est possible d'augmenter son mandat à travers le vote euh, euh, euh, euh des députés mais fale fallait tout simplement réduire son mandat à travers le vote des députés. def naa ne loolu moo gënoon yomb. moo gënoon yomb <laughs> moo gënoon yomb de. nga dem léegi léegi ngeen ngeen dem yóbbu plénière ñu dugal ngeen ngeen voté ko daal di koy wàññi. c'est pour dire juste que. aujourd'hui conseil constitutionnel ñu ngi dégg Ismaïla Madior Fall di waxati di naan conseil constitutionnel <coughs> mënu cee mënu cee xawma la ak lan nee na wu incompétent ak yu demee noonu démb sax bu ñu lay interroger France 24 ñu koy suivre vraiment amul amul sa argument parce que yàggul tuuti yaa ngi toog nga ne impossible au Sénégal de reporter l'élection présidentielle nga yëkkati kàddu googu nga wax ko ba tey jii nii ay xale yu ndaw yoo xam ne dañuy suivre sax actualité ñooy partager say vidéo si li nga wax démb ak bërki démb nu mu safaanoo defe naa ni nag ay la yewoon euh, joxe sa bopp euh, li nga xam ne moo di argument mm-hmm. defe naa ni argument moom mënut a changer selon les positions mm-hmm. mais beneen li président bi muy àddu dafa ne crise dafa wax crise institutionnelle mais président groupe parlementaire bi muy wax si France 24 dafa ne amul crise au Sénégal amul crise institutionnelle kon réeroo am na wax ñëpp lépp a ngi dox normalement. Mhm, lépp a ngi dox normalement. Mhm. merci pour le jingle de Walf. <laughs> lépp a ngi dox normalement. Mhm. loolu moo am. et je crois bien que lii encore une fois jingle bi comme ni ko tegee tey fii noonu la ko sut defee. ñeneen ñëpp noonu la ko war a mën def mu wëlbatiku partagé wu fépp donc Mohamed. oui aujourd'hui qu'on le veuille ou non. teg nañu dara andi ko pour reporter l'élection présidentielle mais ay lay woon bu dee tëgg kese tax. dëgg kese moo tax ñuy wax. te Sénégal kese soxol ñu. argument yu teg moom. conseil fa la voilà fa la kiwee te léegi nag yow. <laughs> yow ña ngay woo pour nga ne da leen di déglu. encore une fois yomboon na justice moo gën a gaaw ci liggéey parce que ñoo ñoo xam luy enquête. Mhm. ñoom ñoo mën a déterminer luy enquête. vraiment ñoom ñoo mën a xencu luy dëgg xencu lu dul dëgg. waaye nag bu fekkee ne yow déjà kay enquête Mohamed xam nga ni kii dafa far. Mhm. kay enquête moom xam nga ni lii la bëggoon mais est-ce que enquête boobu dina nekk une enquête euh, nu ñu koy waxatee impartiale. Mm-hmm. moo jaral la nit ki porté na plainte le procureur s'autosaisi dafay fay lale te kan moo kan moo ki député bi def amendement pour pour ñu yóbbu élection bi jàpp date boobu 15 juin du mooy Mamadou Diop si. Mm-hmm. ah. lu mu wax véritablement jégalu na. lu mu wax mooy di lan rapport bi tegul yoon. lu mu wax moo di effectivement crise amu fi li mu wax mooy ki bëggoon report bi du kenn ku dul président te moom moo ko njëkkee gannaaw bu mu njëkkee def li nga xam moo di déclaration dama la nationalité séné nation sénégalaise alors que mënoon na xaar assemblée nationale def li muy liggéey ba pare moom mu daal di jël décret boo nga xam ne dafay abroger euh, euh, woote gi mu woote woon corps électoral ba ñu fixé élection bi à la date du 25 février 2024 mmh. donc ay la yëwoon conseil constitutionnel bii ñuy ŋaññ euh, jiiñ fa ñaari juge dëgg la am du dëgg xëy na suba ñu ñëpp daañu xam ndax dëgg la du dëgg yaa ngi dégg hmm. may tamit ñi nga xaar ñu brandir preuve yi teg ko sur la table waaye diggante bi ba tey mbir mi dellu na conseil constitutionnel delluwaat na wax léegi nag lan mooy xew si diggante bi hmm. li nga xam ni crise bi ñuy wax du guñ ko dunduñu crise jamono y a pas de crise institutionnelle au Sénégal l'institution judiciaire marche normalement cour suprême mi ngi liggéey conseil conseil ñu ngi liggéey <coughs> juridiction yëpp ñu ngi liggéey magistrats yi ñi ngi liggéey juges yi ñu ngi rendre chaque jour des décisions Bamba am na crise vraiment crise bu amoon assemblée nationale dina toog def plénière liggéey lu muy liggéey ba voté librement mais crise institutionnelle bu amoon gouvernement dina def conseil des ministres ba génnee bataaxal boo wax lu muy wax ba joxe orientation léegi nag ëllëg la ñuy xam na xam crise institutionnelle war na dina am bu fekkee ni nañu def Sénat la bëgg def conseil wo ilaa li nga xam ne moo di euh, blocage jëm si non non parce que ji nañu ñaar wartuñu wartuñu mën lii wala ñu mën la xëy na su boobaa nag xëy na ñu dugg. si lañ xamul que nañ xaar ñeneen def pareil. dem dem déposer député lu ñu gën a bëri gën a. waaw waaw te 39 <laughs> députés def nañu. te je pense que nous sommes dans de droit. lu mu si am euh, duñ ko dingi. Mhm. pays de droit la donc nañu jaaree fi nga xam ni moo di wàllu yoon. Mhm. te man loolu laa gëm. léegi nag président woote na jàpp naa ni nag dëggal bi dëggal bi mhm. si li nga xam ne wax na ko apaisement de l' espace public mhm. mi ngi tàmbali mi ngi tàmbali mhm. si bay oustaz Assane Seck mu ngi tàmbali si bàyyi Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay Fadilou Keita Karim Xurum Xaq euh, Cheikh Omar Diagne et tous les autres Alioune Alioune bu mouvement Yanamar et cetera foofu la tàmbalee. c'est ak yeneen jeunes yi nga xam ne da leen jàpp si ay loo xam ne ay wax la si ay bind la si si manifestation fekk ñu leen ñuy taal yëfu jàmbur volontairement wala ñuy toj yëfu jàmbur volontairement ceux-là qui n'ont pas commis d'acte délictuel te ñu challenge boobu léegi si prison bi. Mhm. jàpp naa ni fa la tàmbalee fa la tàmbalee. apaisement de l' espace public. parce que tamit ak bàyyi nit ñi. Mhm. ku bëgg manifester ñu encadré nga manifester ku bëgg marche ñu encadré nga bëgg marche. waaye nag bu fekkee ni candidat yi nga xam ne ñoom dañoo nekk si seen droit ba tey jii ñuy wax. Mhm. yaa nga leen di bundu xataal saa yi bu ñu génnee lacrymogène saa yi bu ñu génnee arrestation loolu dafay gën a envenimer situation bi tey dëgg jamono ji soxlawuñu ko lu ñuy soxla c'est le maintien de la cohésion nationale sociale c'est véritablement le maintien de la paix et de la stabilité si suñu réew parce que itamit bëgguñu basculer comme yeneen dëkk yi te yàlla ñu yàlla musal ñu basculer mais loolu yépp ci kaw acteurs yi jouer pleinement rôle te que ca jiitu encore une fois c'est la première institution garant des libertés individuelles et collectives très bien